wàllu Ousmane Sonko day ah ma ngay commencé compliqué ci journaliste yi de mar d' Italie ubbil tribune yéene kaay nañu may mën a nduur fay day waaw benn étudiant ci boppam kon moo koy xooxatal di ko xëpp ne dana ko rey allahu akbar la ilaha illallah waaw parce que journaliste bi day nee na may mun a mi de seytaane nga bu mag liggéey bu bon bi gars yi bëgg a def yaa leen koy defal jigéen bu dangereuse nga kii daal nañ leen jël bal dóor ko mu wàcc allahu akbar on doit l'abattre mar d' Italie le soleil yéene kaay ne laal li ma laa na nga kii naa ngi Ousmane Sonko day waaw dama ne la commission ad hoc ba daal dinay taxaw terminé yéen ne kaay ne Benno Bokk Yaakaar waaw daal dina ñuy daan na juróom ñetti ñoo xam ne ñoo war a rey Ousmane Sonko mi ne liquidé ko kon politiquement ah, la ilaha illallah dama ne la ay meeru ñu ngi la wuri bay laa jàlloo Demba Baba Yel Sow Mousri Diakhaté Mamouna Massal Fatou Ndiaye bu réew mi noona la ñe waaw Jéema Ndiaye Ba Pape Birahim Touré ak ci jaara mergan Thierno Bokk day ci 24 heures ah nee na bureau assemblée bi ci boppam lii mu def lu yoon parce que amul sañ-sañ bi aa njiital Algérie ne waaw dañuy jéem a toppandoo France soo oh, yaay te xamuñ ne France ci 1995 bi lée la indi ay coppite kon ca cartum réew mi di constitution bi laa la wax ngir bureau assemblée nationale boobu di mën di délibéré daal di di tëju huis clos waaw source année waaye dama ne la gis nga seen tëju googee la fa xew rayante la commission ad hoc bi ngir tat ni ca noona li ñee waaw rayante la parce que ay damboo day ah dane faatu njaay bu réew mi mi nga xam ne njiitam Idrissa Seck ah ma ngi ca mburoog soo waa ko ok nan lay représenté noonu na li ñee looloo ma jàqal gay ndeg bawol gi di ay damboo ci boppam yamu ca dee parce que ne comme que procureur ma Dramé X waaw laal li malaandu kiiraange Ousmane Sonko bi la man ay dëmboo d'accorduma ca laa la wax ñëf yéeni kaay daaw da càmbane député di ay waaw président groupe parlementaire u Abdoulaye Wade ba day Cheikh Bara Dolly la doon xas ne ko xuus maa waaye maam jaara faam day xamal bi ay ne sama président bi boo ko manqué waatee respect dama lay ñu maar di daal je vais te casser la gueule mooy gël tapé de laaste maam jaara faam kay daa saaga ndey Boubacar bi ay laa la wax maar day taali maar day taali enquête yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne coowal Ousmane Sonko bi le daa mel ni ñu ci ne ak say attaque say juge alluntin day waaw mais nee na def ba xel du ñaaw dossier Karim Wade Khalifa Babacar Sall waaw moo tax ñu baree bari jàpp ne lii éliminer adversaire politique la laa la wax écarté ko Ibrahima Bakhoum journaliste ah am na ñoo xam ne moom lu dal opposant yi jàpp ca saasa ne politique la dëgg la terminé yéene waaye dama ne la plainte contre x bi ah moo changé lépp laa la wax waaw waaw moo tax ay avocat Ousmane Sonko day nee nañ bii mooy bu njëkk ci histoire judiciaire bu Sénégal ci boppam waaw ab magistrat clamé réquisitoire bi lée ñu jël ko ci x teyow juge d'instruction ba day dindaato lu dul bind assemblée nationale muy laalli malaanu kii rangewu x waa kan mooy x boog soobi li ne looloo tax ba grand parti day nee nañ duñ ko voté de maître Abdoulaye ci évidence yéene laa la wax loolooy dëgg de Le Quotidien yéene laal li malaanoo kii raangeew Ousmane Sonko ba day waaw x de lëf la bi ci boppam liñ bëgg a xam mooy kan mooy x laa la wax dëgg la non inscrit day nee Bamba Dieye moo leen gënal Fatou Ndiaye bu réew mi kookoo nga mburoog soow di 24 heures yéene kaay ne coowal suite ba teg gi day xeex baa ngi mel ni tulleeg ma la a la wax ndaxte maître El Hadj Diouf day waaw nee na dana porter plainte Pape Alé Niang ak Ahmed Aïdara ah. waaw waaye wax Pape Alé Niang ci boppam démb tontu na maître El Hadj ne ko nee nga ñin ay fenkat lañ yaa ñu dàq fen foof te maître El Hadj Diouf xanaa xamoon ne yow yaay xalif général lu kullu fenkat ci réew mi wax Pape Alé Niang mooy wax de maître El Hadj bu dee dafa am problème ak Ousmane Sonko na ko dem lijjanti maître El Hadj Diouf bu dee dafa am problème ak waa Pastef waaye na ko dem lijjanti Pape Alé Niang day waaw daal dinay fàttaliwaat nag maître El Hadj Diouf te nga Ngom la ak Ornella Montero maire El Hadji xam na li may wax Baba Alla Niang mooy waxtu samay kàddu de men fay mouvement des femmes Pastef waaw nee na Adji Sarr dañ koo manipuler nax ko ba pare daal di koy séquestrer nekk nii dañ koo fat de les ko yéene kaay ne jegeñaale Ousmane Sonko yi day ak seen i mbokk niñ leen di jàppee ni lé waaw dama ne la jabaru administrateur ba Birame Souleye Diop jabar ja ma nga ca dig de mar di Italie waaw benn étudiante ko jaay de Traoré ndaxte étudiante boobu moo bis boobee la Abbas Fall doon menacé kilifa yi mel ni Mahmoud Saleh ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye la ilaha ay lii fuñ jëm libération ne kaa jabaru administrateur bu Pastef day ma nga dig démb ba léegi waaw woote daal réew mi ak menace de mort Abbas Fall day Pastef Dakar ak jabaru Birame Souleye Diop teg nañ leen loxo ak collègue am bi la di eh, Mahmoud eh, Mahmoud Saleh ak prise su téléphone ba moo indi la ay avocat wu défense day nee nañ gars ci Birame Souleye Diop lañ bëgg a jot on ne passera pas looloy dëgg de procureur day conc ba xam nga fan la teg concam bi woote daal mi insurrection yéene kaa gi coowal Ousmane Sonko mi lée def na musiba parce xale yi jigéen nga xam ne kon dañ doon mbaraan di mbaraanaas yi waaw VIP yi leen doon doxaan day dañ leen di raw mooy feebar bi nga xam ne kon moo indil Ousmane Sonko jafe-jafe mi yëpp ndeysaan Guy Marius Sagna waaw teg loxo bi nga xam ne kon ñu ngi ko teg loxo ay jegeñaale Ousmane Sonko nee na léegi bi day raamatul bi daa jug taxaw dëggu Cheikh Bara Dolly bu PDS day wax nañu la Abdoulaye Wade waxoon Ousmane Sonko nee na Abdoulaye Wade ko defal attention ci li ngay lekk ak fi ngay teg sa tànk booy tukkee tuddeel yóbbaale sa jabar waaye damaa yaakaar man Mbàkke ne Ousmane Sonko day respecté wul yooye kon tey fii yëpp du fi yegg si Sud Quotidien ñenn ñi dee xol lañ ci demee nit ñi moom dañoo jeng taskatu xabaar yi waaw moo tax it waa Sénégal day bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi dal nañu ci kaw TFM ak seen émission jàkkaarloo yi ñu génn ni lée ak wax yu ñaaw yi nga xam ne kon moom lañ fa doon wax Félix Salé day ci Sud Quotidien nee na journalistes yi ñii dañoo Sonko ñii xeex Sonko aroon a dem ne ay journalistes yoo xam ne dañoo dem ba taxaw taxawaayu ak ay enquêteur yenn saay sax ñu indi ay tuuma Babacar Ndaw Faye i média waaw yorinu Covid bi day Sénégal léegi moo jël ndaare waa lan moo fi xew juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeenti deewagum nañ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la suñuy dëkkandoo day la fa dee bariwul de keroog ba radiothérapie wu daan teg bi paane ñu am cancer Maroc ak Mauritanie day lañ doon faju jee dama ne la Mauritanie ngi ni lée léegi daf ñuy jàngal sax Gambie ngi nii léegi daf ñuy kokkali lii ñaaw na sa jamono jooje la solo yéene kaay nee na sommet u G5 Sahel ba ca Tchad waaw Macky Sall day mooy invité d'honneur <laughs> Macky Sall de ak lu mu invité d'honneur d'honneur d'honneur d'honneur d'honneur d'honneur d'honneur bu ñibbisee ci réew mii dana xam ne suñ pétrole bi fàttewuñ ko déedéet parce que suul ko teree xeeñ te ko fiy tere boo paree ma ne la alaaji tëjal www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube Facebook Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.